xibaar yi ñoo ngi ci ànd ak Serigne Cheikh Ndiaye Njare Serigne Cheikh Ndiaye Njare Serigne Cheikh Ndiaye Njare nag sët la ci Serigne Daaru Assane Ndiaye nekkoon góoru yàlla gu yàlla baaxal moom nag Serigne Lasraar bu yàlla may la nee na ma dina yëngu ci wàllu seet ak seet bu mu mënti doon foo mënti nekk ci àdduna boo ko woowee dina la seetal wax la ci sa dund loo mosul gis wala loo mosul dégg waaye tamit nee na ma dina def noob wàllu noob moom yàlla may na ko ci vingt-quatre heures maanaam benn bis képp mu jox la résultat yu am na cangatug njara cangatug njara googee nee na ku mu jëflanteeg ba noppi rek di nga ci am lu kawe sa njortu waaye nee na noppeegul de am na ndombo goo xam ne ndombo njare la ñu koy wax ndombo googu nag nee na képp ku ko am dina la aar ba noppi ubbi say xéewal nee na yàlla tamit may na ko ci wàllu ñaan nee na wàllu ñaan dina ci yëngu rawatina wàllu kayit képp koo xamante ni am nga ci ay jafe-jafe dina la ñaanal ba noppi samp la nee na tamit am na cangatug rab goo xam ne bis bu leen yàlla boolee vingt quatre heures maanaam benn bis képp dinga nga gis ay coppite ci sa bopp waaye butéel yi ngeen di gis moom la tuddee gaynde gu góor gi bii nag sunu mbokk góor ñi borom la ko jagleel nee na képp ku ko jëfandikoo di nga daw ñëw dolliwaat waaye nee na feebar yi yëpp yàlla may na ko ci muy ndoxum siti hémorroïde diabète ak yeneen feebar yi nga xam ne sonnal nañu askan wi képp ku ko bëgg gis nag ma nga ca cité Aline waaye képp ku bëgg a jokkoo moom it numéro yaa ngi noonu ngeen di gis muy 78 475 27 82 ma baamtu ko 78 475 27 82 loolu la ñu mën a jotee Serigne Cheikh Ndiaye Njare nekk Serigne Lasrar bu yàlla baaxal. ñu door xibaar yi dooree ko ci doomu Sénégal bii di Cheikhou Oumar Ndiaye moom nag ma ngay football ci génération foot gone gi défenseur bu footballub Sénégal am ci moom yaakaar la ndax champion d'Afrique la CHAN bi weesu demoon na te doxal na ak équipe nationale loko bi bu ñu sukkandikoo ci record nekk fii ci réew mi nee na club ba mu nekk di génération foot. juboo nañu ak club bu mag boo xam ne ca réewu Belgique la nekk semaine yii di ñëw mën nañu ko officialiser gone gi jugee ci Sénégal wutali ca Belgique muy Cheikhou Oumar Ndiaye nekk defenseur bu mën la muy def. ñu jugee ci Cheikhou Oumar Ndiaye jël beneen doomu Sénégal di Landing Badji moom it champion d'Afrique la ndax demoon na ca CAN U20 bi ànd ak équipe nationale bu Sénégal def jaloore indil ñu coupe bi ci réew mi jaloore joojee sax bi ko amalee ba noppi club bu bees tàq club bu ñu naan Aris Limassol ñoo ko jënd ci waa AS Pikine club boobee nag ma nga ca réewu Chypre gone gi nag AS Pikine gi mu jógee ñëw nañu ci transfert am tey jii li ñu ci am cib xaalis ak li ñu jot cib xaalis bu ñu boolee li ñu jaayee gone gi lépp mi ngi toll ci soixante-douze millions francs CFA loolee la ñu jaayee gone gi waaye ñoom ci seen bopp li ñu jot cib xaalis mi ngi toll ci quarante-six millions francs ñaareel ñu jotagum comme xaalis muy waa AS Pikine beneen xaalis bi ci des nag bonus la bonus yooyee nii lay demee ci match yi nga xam ne gone gi dina ko góolu foofee ak raaye yi muy jël ci la ko waa AS Pikine du jotee kon nañu ñaanal gone gi mu am temps de jeu ba noppi jël ay raaya ndax li des ci xaalis bi ñoom waa AS Pikine ñu mën cee jot te gone gi nag lu mën di xewit moom footballub Sénégal am na lool yaakaar ci moom muy Landing Badji yu jugee ci Landing Badji ak waa AS Pikine jël doomu Burkina Faso bi tudd Edmond soba gone gi nag agent wam tey jii gis nañu ko ca Barcelone dugg na ci bureau waa Barcelone yi nag ngir waxtaanee ëllëgu gone gi ak club boobee nga xam ne Xavi moo leen di tàggat gone gi waa Barça dañu ko bëgg tey jii nag Mundo Deportivo nee na agent wa ma nga woon foofee di waxtaan ak waa Barcelone gone gi nag ma ngay football ca Bayer Leverkusen défenseur bu footballu Burkina Faso am ci moom yaakaar la. ñu jugee ci Edmond soba waaye Barcelone duñu ko génn gum bu ñu sukkandikoo ci Esport Xavi joxe na accord maanaam joxe na kàddoom ngir gone gii di Abde jugee ca Osasuna delluwaat ca këram di Barcelone. Barcelone li ko waral moo di kat waa Barcelone dañoo bëggoon doomu Belgique bii di Yannick Ferreira Carrasco nekk ci Atlético de Madrid waaye mbir moomee kat day waaj a dëgër ci ñoom moo tax li ñu bëgg moo di jëli Abde mu ñëw foofee jàppale leen waaye doomu Maroc bi nag li mu xamal Xavi ak ñi mu àndak ci liggéey bi moo di kat moom nañ ko wax lu leer su fekkee su ñëwee dina am temps de jeu bu doy noppi na ngir ñëw toog jàppale Xavi waaye ñëwul foofe rek ngir toog ci banc bi di xoole su fekkee mën nañu ko may temps de bu doy noppi na ngir toog ca Barcelone muy Abde nekk gone gu footballu Maroc am ci moom yaakaar. ñu jugee ci Abde waaye ñoo nga Barcelone ba léegi seen défenseur bii di Eric Garcia la ñuy jël Eric Garcia nag li ko Xavi xamal ak waa club bi moo di compté tuñu ci yow soo gisee guro yéyal club bu ñu naan Inter nag dañu ko bëgg waa Inter bëgg nañu ko ba xamal ko waa Barcelone Barcelone nag nee nañu suñu ca amee dix millions d'euros noppi nañu ngir tàkkalikoo ak moom bu ñu sukkandikoo ci sport ñu jugee ci Eric Garcia ak waa Barcelone jël ancien joueur Barcelone bii di Jordi Alba xam ngeen ne jugee na ca club boobee jamono jii nag amul club waaye jege na lool nag ngir xaatim contrat ca Inter Miami fekki Lionel Messi la poule ga doomu Espagne bi ak club boobee seen waxtaan sori na lool ngir mu dem ca Amérique doxal muy Jordi Alba xibaar boobu Mundo Deportivo moo ko lee ñu jugee ci Jordi Alba ak waa Inter Miami ak seeni bëgg-bëgg dem ca waa Bayern de Munich ñoom nag li ñu bëgg moo di attaquant bu mën a dugal ndax xam ngeen ne ba fa Robert Lewandowski jugee ak tey jii seeni bit daa wàññeeku ki ñu bëgg nag moo di doomu Serbi bii di Vlahovic nekk ci Juve bu ñu sukkandikoo ci Tuttomercato waxtaan bi. door na te waxtaan bu sérieux la démb ba tey nag Tuto merkato Web nee na ñoo ngi ci waxtaan bi li ñu bëgg moo di jéem a xool nuñ koy jëlee ci Juve yóbbu ko ca Bayern de Munich mu doxal muy Dusan Vlahovic nekk attaquant bu mën la muy def ñu jugee ci waa Bayern de Munich ak seeni bëgg-bëgg dem ca waa Arsenal ñoom nag xam ngeen ne dañoo bëgg gone gii di Kai rawatina ki leen di tàggat di Mikel Arteta moom gone gi moo ko tee nelaw jamono jii waxoon nañu leen fi ne waa Arsenal ñoo ngi waajal ab offre offre boobee nag dem na waaye Chelsea dañoo gàntal maanaam dañ koo rejeté xamal nañu waa Arsenal ne leen xam ngeen prix bi ko fi bàyyi muy soixante quinze millions d'euros ndax club boo xam ne fii ci Angleterre nga nekk duñ la wanteer gone gi li ñu ci bëgg moo di soixante quinze millions d'euros kon xam ngeen li leen war jamono jii nag Telegraph nee na waa Arsenal ñoo ngi waajal ngir def beneen offre jébbal ko waa Chelsea